ñi ngi leen di nuyu ak eh, fu ngeen eh, mën a nekk am mbégte eh, jàkkaarloo ak yéen ci soir d'info di dalal docteur Alioune Badara kan Diouf moom nag moom mooy secrétaire général des médecins vétérinaires du Sénégal xam naa ne nag moom Diouf bu mu ci yokk rek moo ko xaw a yàq maa ngi lay nuyu. di la dalal jàmm maa ngi lay fay bind di kontaan bu baax a baax. di ñëw seen émission. di wax ne ñoo ngi nuyu également sa téléspectateur yëpp. di nuyu également l' ensemble euh, des euh, des du secteur primaire. Mhm. voilà. alors yaa ngi wax léegi secteur primaire dinañ si ñëw parce que seen grève bi am na ci tuuti am na ci impact bu baax. Mhm. Mhm. Euh, bu ñu waxee liggéeyu vétérinaire médecin vétérinaire mooy lan. waaw médecin vétérinaire boo ko xoolee maanaam dañu nekk des agents yi nga xamante ne dañu jàng ci benn école bu ñu tuddee école interétat des sciences et médecine vétérinaire de Dakar def six ans d' études génn def doctorat. Euh, soutenir après nekk docteur vétérinaire. maintenant nag euh, ñu am possibilité nekk en tout cas ci privé bi mais également am possibilité nekk ci public bi mais également am nekk dans les organisations internationales. Mhm. donc boo xoolee euh, ñun man maay la secrétaire général du syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal. Mhm. les médecins vétérinaires du Sénégal comme ni ma ko waxee nag dañu nekk un peu partout dans les dans les secteurs dans le secteur mhm. moom mooy agriculture mooy pêche mooy élevage. Euh, lii xew nag mooy euh, ñun euh, comme nous sommes un peu dispersés moo tax ñu dajaloo def benn syndicat bu tuddee syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal pour mën a xeex les actions yi nga xam ne c'est des actions corporatistes. Mm-hmm. pour suñu corporation. Mm-hmm. mais comme aussi tamit dañu nekk ci secteurs yi. Euh, muy secteur primaire. Mhm. Euh, jamono ji secteur primaire bi dafa am. secteur ko xam ne ak euh, élevage élevage voilà effectivement. Mhm. Mhm. jamono ji nag secteur primaire dafa nekk secteur boo xam dafa nekk en mouvement d'humeur. syndicats yi ci nekk donc comme docteur vétérinaire yi aussi dañu nekk ci ministère bu nekk ñoom aussi ku ci nekk dafa bokk ci syndicat bi nga xamante ne moom moo nekk ci ministère yooyu noonu. man mii di wax ak yow par exemple je suis au niveau du ministère des pêches et l'économie maritime. fa liggéeyee. bokk ci syndicat bu ñuy wax Citrapass. Mhm. donc am na ñeneen aussi ñoo xam ne ñoo ngi ci yeneen secteur yi comme élevage bokk ci syndicat des des des travailleurs de l'élevage de l'élevage. daanaka lu ñu leen dégg ci grève sax bariwul. Euh, bariwul lan moo waral grève bi. waaw mus musul am parce que xam nga la secteur primaire yàgg nañ yàgguñu ko musuñ ko dégg. en tout cas ci ay jafe-jafe musul 2018 grève secteur primaire musul mosuñu ko dégg ci jafe-jafe yu mel nii. Mhm. li am nag mooy euh, dañ leen tooñ. Mhm. parce que xam nga. Euh, le président Macky Sall ci allocution bi mu doon def le premier mai passé dafa ne woon euh, euh, dafa gis ne secteur primaire bi secteur bu am solo la daanaka moom mooy dundal le Sénégal à travers l'agriculture à travers la pêche et l'élevage mu nekk secteur bu am solo mais malheureusement nit ñi toogatuñ fa parce que tout simplement traitement salarial bi ñu leen defal traitement bu bon la euh, mu ne nag vraiment il faut qu'on trouve des solutions pour fexe ba nga xamante ne seen salaire dina mën a jóg pour que au moins vraiment ñu mën a servir parce que ñu bëri ñoo ngi doon dem bi mu waxee loolu mu ne trouver des solutions à l'interne à travers vos ministères ci le ministère yëpp nag daal di ak seen i ministres dem liggéey pour am des solutions internes ministre ministère ñu jël exemple ci ministère par exemple de la fonction publique bi nga xam ne bi ñu toogee ak Mariama Sarr mm-hmm. nee man j'ai trouvé des solutions pour mes agents mm-hmm. donc ministre yi daal di jël adopté loolu mm-hmm. ñun par exemple au niveau du ministère des pêches et de l'économie maritime euh, dañu fexe travail ak benn agence bu ñuy wax agence nationale des affaires maritimes agence boobu fexe jàppale ñu ci ay fonds yoo xam ne am nañ ko mu permettre ñu mën a rémunérer agents yi di leen jàppale ce qu'on appelle des primes internes au niveau du ministère de ñoom aussi ñu liggéey si décret ba yàlla def aussi euh, ñu am ay ay ndàmpaay yoo xam ne jox na waroon nañ leen ko jox mais ñoom sax malheureusement ba léegi joxuñu leen ko donc ñun sax au moins au niveau du ministère des pêches et woon nañ ko di ko laal yàggul dara agriculture tam même chose voté loi ba yàlla def aussi ñu am des primes internes yoo xamante ne tax na ñu war a mën a euh, mën a suqaliku. ba ñëpp commencé vraiment di suqaliku bu baax. élevage rek moo nekkoon ñoom jotuñu woon ba léegi dañ leen doon dig naan leen dañ ko jot ba dernière minute. récemment ñu toog jot benn note Abdoulaye Daouda Diallo ancien ministre de la de du budget mmh. de ancien ministre des finances d'alors mmh. mu bind benn missive benn note circulaire daal ni dafay supprimer ces indemnités internes mu nekk nag affaire boo xamante ne mën naa ni dafa créer vraiment quelque chose boo xam ne c'est kenn mënu ko kenn su ko gis mmh. parce que quand des acquis restent des acquis bu ñu demee ba ñu jékki-jékki rek jël benn mesure. Mhm. et puis man di ma njëkk jaaxal sax mooy circulaire. Mhm. nan la mën a ñëwee fekk ay arrêté interministériel. Mhm. wala mu fekk ay décret mu bëgg ko dindi. donc mbir la moo xam ne mbir mu doy waar la. mettre nag ñëpp nag dans l'inconfort. tey boo xoolee mën naa ne il est en de créer des problèmes yoo xamante ne problème yu yoo xam ne yu doy waar la. au niveau. Euh, du Sénégal sax laay wax. parce que secteur primaire dafa nekk secteur bu am solo. mais grève bi ngeen ko déclenché yàgg na te yéen a ngi bouclé waat yeneen 72 heures. Mhm. yi ngeen entamé woon mardi. Mhm. Euh, suba da ngeen di évaluer après ngeen bu fekkee amul. amul leen réaction parce que ba léegi amul leen réaction de la moom moo moo ñu xaw parce que ba léegi nii mën naa ne amagul réaction. Mhm. Euh, parce que boo xoolee lii lii jafe-jafe bi mooy tey secteur primaire bi dafa commencé taxaw complètement tey boo jëlee le secteur. de la pêche nga xamante ne secteur bu am solo la. tey mën naa ne pêche pêche dafay dundal presque plus de six cent mille emplois à travers le Sénégal. Mhm. tey pêche trois virgule pour cent ci PIB national. Mhm. ah ba en plus de ça pêche mën naa ne mooy deuxième secteur d' exportation bi jusqu' deux mille dix huit il le premier secteur le premier secteur d' exportation donc yàlla def. vraiment mu taxaw. Mhm. ñu jël élevage nga xamante ne moom it bokk na ci secteur yi nga xamante ne mën naa ne tey ñooy jàppale Sénégal ci cheptel bi. Mhm. à donc la sécurité alimentaire. Mhm. ak sécurité sanitaire des aliments le cas des abattoirs. xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. donc ñoom aussi ñu ci joué rôle bu am solo agriculture aussi nga xamante ne tey dañu ne dañu soxla ci autosuffisance en en riz. ak yeneen ak yeneen. donc jafe-jafe yu yëpp. vraiment tey yëpp la ñu bloqué tey boo xoolee au niveau du ministère des pêches exportation amatul défi. ñun bloqué nañ toutes les exportations. ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk au niveau déconcentré parce que euh, bu ngeen deful le contrôle adéquat mm-hmm. euh, en amont duñu mën a exporter. mais certification parce que il faut il faut qu'on il faut qu'on certifie il faut qu'on inspecte il faut qu'on certifie mais certification amatul mm-hmm. donc tey industriels yi ñoo ngi vivre lu sol euh, mm-hmm. tey boo xoolee également au niveau interne agent yi ñoo waroon joxe les bons pour que tey gaal yi mën a dem géej mais tey agents yi bloqué nañ bon yi te dinañ dem tuuti kanam dina am pénurie de poisson dans le marché tey boo nee fekkoon euh, pénurie bi fi amoon. voilà parce que marché bi y' a y' a plus de poisson. mu fekk loolu bokk ci. tey boo ñëwee au niveau de du ministère de de l' mais tey dañu bëgg boycotter campagne vaccination bi. te xam nga ñëpp xam nañ ne tey Sénégal mu ngi woon ci ci benn dynamique bu am solo pour éradiquer peste peste des petits ruminants. Mhm. te tey boo xoolee daanaka euh, bu fekkee dañu bloqué. xëy na campagne bi. commencé mais dañ ko bloqué actuellement ba léegi nit ñi demuñu. donc kon loolu ça pose problème te tey Sénégal yoo xam nga ne chaque fois dañuy jéggaani. Mhm. su tabaski jotee. mais loolu mën na indi sax euh, cheptel bi dee wala dara. mais bien sûr ak maladie yi ak feebar yi nga xamante tey mu ngi si bi. te yooyu yëpp aussi c' est des tey euh, laissez-passer sanitaire euh, le gouvernement waxul. le gouvernement réagirul le gouvernement au niveau de l' fi ngeen ñëwee dafa fekk remaniement a am a un ministre. non mais il faut que euh, période bi bi ñu ko defee la parce que Abdoulaye Daouda Diallo période bi muy signé circulaire boobu. Mhm. président Macky Sall ci moom dafa ne woon. nañu gérer les les les les les les de telle sorte que bu kenn signé signé signature boo xamante ne. Mm-hmm. les affaires courantes. mais malheureusement Abdoulaye Daouda Diallo respecté ko. Mm-hmm. te bi mu ko defee aussi période bi mu ko defee te moom xamoon na carrément que dafay am dafay mm-hmm. donc remaniement mën nga toog mën nga dem. donc y a des euh, yoo xam ne des mesures impopulaires yoo xam ne soo koy jël. quand même tu réfléchir balaa nga koy jël. et malheureusement fi mu ko jëlee moo tax aussi ñu à notre niveau. Mhm. Euh, période bii nii grève bi demee nii. Mhm. te malheureusement xëy na le ministre dina dina réagir ci parce que quand même impact mu nar a am mais c' est extrêmement grave parce que tey euh, par exemple rek ñun ñi nga xamante ne ay consommateurs lañu di dem dans le marché. Mhm. Euh, ñu gisul ndawal bi par exemple daa ngeen ci def ay tampons yoo xam ne dina wane ne lii ñu abattre. bu baax la mais effectivement ko. mais effectivement parce que li xew est ce que cela veut dire li xew li xew li xew au niveau. niveau des abattoirs c'est extrêmement grave. qu'est-ce parce que parce que tey ñun euh, man comme ni ma la ko waxee. Mhm. je suis le secrétaire général des syndicat des médecins vétérinaires donc ñu bokk ci syndicat yi nga xamante mhm. daanaka ñoom ñoo boot secteur primaire. Mhm. bi ñu demee grève ñun nous avons à l'ensemble de nos membres de suivre ces mouvements. Euh, ñu dem nag le mardi la ñu déclenché grève bi donc le le le euh, agent bi nga xamante dafa war a dem mardi grève. envoyé benn au niveau donc pour pour le directeur de la SOGAS ne ko effectivement ñun dañuy dem suba grève moom mu xam ne dañu war a dem grève mu xëy suba teel def loo xamante ne hors la loi laa ko tuddee acte boo xam ne kenn xamu ko mooy maanaam permettre abattage mhm. alors abattage dafa am benn dafa am ay loi yoo xamante ne tey ñoo ko tënk tey boo jëlee euh, dë euh, boo jëlee tey décret 89 543. Mhm. Mhm. dafa wax lu leer ci article 4. Mhm. ne tey balaa ngay abattre animaux. mais da nga ko dañu dafa am vétérinaire dafa war a ñëw def saytu bi nga xam ne mooy saytu bi njëkk. mooy maanaam ce qu'on appelle euh, l'inspection antemortem. inspection boobu nag. bu ko defee ba pare xool effectivement papier euh, papier mala bi. Mhm. mais également xool également ndax mala bi feebarul. Mhm. doo ko autoriser c' est l' autorise. Mhm. donc l' abattage bu ko abattre ba pare l' inspecteur dafay ñëw en amont en en aval. maanaam après après abattage bi. loolu la ñu tuddee inspection post mortem. dafay ñëw xool. ndax amul feebar ndax amul feebar. ba pare xool effectivement stockage bi mais amul. mais mais gars yi ñu ngi abattre malgré tout ça veut dire que notre santé est en <laughs> mais mais loolu mooy loolu mooy jafe-jafe loolu la ñuy wax exactement. te li ci graaw sax du du du même santé bi actuellement c'est en jeu parce que boo mm. xoolee. Euh, mën naa ne euh, euh, bu weesoo loolu sax dafa am yeneen xeet yoo xam ne mën na si dugg. parce que tey ah yàpp bu ñu tamponné wul. Ah. yàpp bu ñu tamponné ñu koy jaay si marché. Ah. mais. mais c'est source de de désordre parce que tey yàpp yàpp bi suñ ko dugalee ci marché bi ñi nga xamante dañuy sàcc ay xar mën nañu rendi jël loolu dugal ko ci marché ay medd jël medd xam xam bi nga yàpp mbaam mbaam sëf da xam mbaam da xam yàpp mbaam du ko xàmmee xàmmee ko yàpp mbaam xuux donc yooyu yëpp aussi mën nañ ko dugal ci marché bi te tey jafe-jafe la boo xamante bu doy waar boo xam ne kenn mënu ko expliquer. te aussi ñu toog am benn waay yoo xamante kenn mënul comprendre parce que man dama jàpp sax même les bouchers. yi nga ñoo indi seen nag ñu koy rey ils sont victimes. parce que man information yi ma am le gars dem dafa woo boucher yi ñu ñëw le premier jour. ne leen abattre leen. ñoom bi ñu abattre par la ñuy doo xam ne y avait pas d'inspection de vétérinaire. moo tax tey les même les bouchers ont décidé de de porter plainte. Mm-hmm. te li ci gën a graaw parce que def na ko le premier jour. Mhm. nous avons alerté la presse. waaw jooju mu continuer encore di ko def. c'est le directeur général de la SOGAS. de la SOGAS waaw. moom état lay liggéeyal. liggéeyul état privé la xam nga loolu tamit c'est problématique. foofu fa la abattre loolu nag c'est problématique parce que tey. Mhm. moi je dis que la gestion des abattoirs ñu abattre mais actuellement ñoo ngi jaay yàpp bi te kenn contrôlé wu ko. ça c'est ñoo ngi jaay yàpp bi te kenn contrôlé wu ko te moo tax quand même nous avons eu l'information que. Euh, restaurants yi ak hôtels yi ak les les supermarchés ñoom ñëpp ils ont décidé d'arrêter parce que ah, ñoom ils se disent que nee nañ parce que quand c'est la restauration collective qu'ils font te je pense que tey bu dul loolu sax dafa am xeetu feebar yu bëri yoo xam ne dafay jóge ci mala yi di dem ci nit ñi eh, tey lu mel ni tuberculose feebar la boo xamante ne sunu gars yi nekk au niveau de laboratoire wax nañ ñu ne mm-hmm. euh, chaque mois daanaka dinañu génne benn carcasse wala lu ko ëpp ci tuber ci ci boo xam ne tuberculose la. ëpp naa ñu koy génne di ko teg na le. waxuma la dara mais lu mel ni cysticercose nga xamante ne mooy teeña. waaw teeña mooy xeetu feebar yi nga xamante ne. day am nit bu ko amee voilà donc bu ko amee saan lay nekk. boo xamante nit ki du du du bu ko lekk bu buy lekk du ko du ko feeñ fen dëgg am na yeneen aussi yeneen xeetu feebar. Ah. tey boo xoolee li indi tey ces pandémies là. Mm-hmm. mais c'est l'alimentation mauvaise. Absolument. tey boo xoolee lu mel ne ay Ebola lu mel ne ay ay ay euh, coronavirus ah. lu mel ne ay peste ci ay ci ay animaux la jógee. Ah donc 60 pour cent des maladies yi xamante ne c'est actuellement c'est zoonotique c'est d'origine animale. Mm-hmm. donc kon ñu ngi foowee. Mm-hmm. actuellement lu doy waar. Mm-hmm. te loo xamante ne moi je pense que l'État te li ci gën a grave mooy l'État mu ngi ko dégg. te ba léegi di ñun dégguñu leen ñu wax si. mbir mënoon nañu leen woo sax bokk na leen ñu ngi soog a ñëw may leen ñu tuuti. Ah. waaye ñu exposé ñu suñu santé comme ça on danger boo xamante ñun xamuñu lan la ñu nar a jëlee ci loolu ah en tout cas en tout cas c' est yoo xam ne vétérinaire yi. contrôlé wuñu ko saytu ko waaw ba pare en ah. plus impact économique bi tamit dafa ngand maa la koy wax léegi nee naa la pêche. ah oui exportation amatul. au niveau de la bi nga xam ne moo doon def euh, contrôle yi. nga xamante mooy. DPM mooy lan mooy direction pêche maritime. mooy gérer tout ce qui est euh, interne. Mhm. production euh, mhm. kii bi nu sax contrôle interne ak yooyu. Mhm. mais boo xoolee. liggéeyatuñu donc donc tey. Euh, facteurs yi bëri na facteur de danger yi nga xamante ne moom la ñu exposer la population. c' est énorme la pêche artisanale aussi yéen da ngeen leen jox ay. bon de carburant. Ah pour ñu mën a dem en mer. mais instant yi nañ ko. donc kon demuñu kon mën nañu am pénurie de poisson. day de poisson day am donc. Ah, actuellement non xam nga malheureusement. nos pays man dafa am lu ma jaaxal ci ñoom. genre secteur yi nga xamante ne ñoom dañu jàpp ne mooy secteur bi dundal. Sénégal mm-hmm. mais ñoom ils préfèrent am yenn secteur ne ñoom dañu jàpp ne yu mel ne ay secteur finance. Mm-hmm. ñoom ñoo yor économie alors que. ces secteurs là ils ne font que mm-hmm. yi nga xamante ne tey moom mooy dem foofu. mais nit ñi ñoo koy liggéey. nit ñee koy liggéey c'est ces secteurs là qui la qui travaille sur ça mm-hmm. Mm-hmm. mais tey agent technique yi nga xamante ne tey ngi au niveau du ministère de l'élevage wala ñu nekk au niveau mm-hmm. mais ils sont jusqu'au Fongolimbi nekk dans des zones très reculées di liggéey liggéey boo xam ne bu am solo di contrôle tey mën naa ne tey bu nit ñi feebarul parce que ñoom ñooy def liggéey bu am solo mais tey ces gens là ñoom ñëpp ñu jàpp ne liggéey bi ñuy liggéey amul njëriñ. li am ci abattoir xam nañ ne liggéey ah bu ngeen ko contrôlé wul mën nañu am ay feebar. mu dugg man dama jàpp ne. loolu kay mooy dama euh, jàpp ne dama jàpp ne le gars de laboratoire. ki nga xamante ne tey moo nekk tey Sogas. dama jàpp moom dafa jàpp ne peut-être métier bi gars yi def amul njëriñ. moo tax tey muy considéré lii muy def mais sauf que lui seen seen du moom mooy décidé. waaw mais c'est ça aussi et l'État aussi doit être regardant sur ce qui se passe. malheureusement tout privé mooy jóge fee ne leen abattre leen abattre leen quoi. on sait pas. donc je je pense que daal grève bi mm. grève la boo xamante ne warul. warul tardé c'est-à-dire le gouvernement doit réagir rapidement parce que nag ñoo ngi jëm aussi ci gàmm bu ko fàtte. Mm-hmm. te gàmm gi ñu jëm. Mm-hmm. Euh, xam nga ne mala yi mala mala waaw mala yi dañ leen di rey bu baax a baax. Ah. tey waa te mala yi bu fekkee contrôlé wuñ leen. Mm. problème dina am kon a continuer grève. non mais bu fekkee arrêté parce que demain incha allah gars yi dinañu def évaluation pour xool est-ce que l'État euh, maanaam lu mu wax. bu fekkee waxul dara les gens vont corser la grève la grève. Mm. te loolu waxtaan nañ si bu ah, baax a baax. te te dina doy waar waaw parce que quand même parce que quand même je pense que il est temps nag ñu woo leen. waxtaan ak ñoom. pour que ñu régler de manière définitive cela parce que man dama jàpp ne euh, secteur primaire luñ ko fay doyul. tey mënuñu jël secteur yi mel ne ay secteur des finance di leen jox. Euh, ay ay fonds communs. mais secteur primaire bi nga wax bu ñu leen fulaaloon ñun du ñu soxla jéggaani bitim réew. voilà exactement. pêche bi tey jii yàq nañ ko. Euh, élevage bi. bu tabaskee ñu dem Mali. voilà dem Mauritanie. agriculture nag agriculture moom moom laa lay nga xamante ne tey moom waroon voilà voilà moo moo ñu waroon moo ñu waroon jàppale pour ñu autosuffisance mais tey fulaaluñ ko te tey ñoom ils sont ils ont décidé que ne ñoom duñu joxe les statistiques agricoles mm-hmm. te statistiques agricoles mooy tax ñu mën a évaluer ñu mën a évaluer euh, agriculture bi xam nan la ñuy pré prévoir pour que mm-hmm. tey euh, kii di ñëw mm-hmm. ñu mën a def une bonne production agricole mais malheureusement comme fulaaluñu agent yi aussi mm-hmm. agent yi tamit jël seeni i responsabilité waaw te je pense que tamit kenn gënuñu méritant est-ce que am ngeen agent agent agent yu doy parce que aussi euh, c'est vrai a école vocation panafricaine que mu ngi fii Sénégal mm -hmm. depuis les années 60 je pense mm-hmm. euh, fu nekk lañ ñi di jógee di ñëw jàng si fii si ci mm-hmm. Sénégal mm -hmm. euh, mais on a comme l'impression que amuñu agent yu bëri vétérinaire soo demee xam nga xam nga euh, vétérinaire en fait dafa am ay classes yu bëri parce que tey yàlla docteur vétérinaire bi nga xamante ne mooy comme ñun par exemple nga xam ne dañuy jàngee école interétat mm-hmm. mais aussi y a les agents mm-hmm. yoo xamante ne ñoo ngi jugee Saint-Louis mm-hmm. fii am na benn école boo xam ne ñooñu tamit euh, ci ci la ñu bokk y a les ingénieurs également des travaux d'élevage yi nga xamante ne ñoom aussi vraiment ñu ngi génnee Bambey mais est-ce que doy nañu bon xam nga l'effectif ça manque de temps l'effectif bu ñu ko mënee yokk aussi tamit moo gën mais l'état quand même il faut dire que ñu am Sénégal bon actuellement nii nous sommes autour de euh, en tout cas récemment nii statistiques yi mu am ay plus de 700 comme ça à peu loolu doy na pour tout un Sénégal de 14 17 millions de personnes. <laughs> mais mais c'est c'est peu c'est peu mënoon nañu am plus que ça mais néanmoins. quand même est-ce que le dans ces conditions bu fekkente ne amu leen jumtukaay non mais heureusement heureusement parce que yéen indemnité xeexu leen indemnité kese yéen a ngi xeex aussi eh, ñu dolli leen jumtukaay liggéeykaay mais mais heureusement que nekkul vétérinaire nekkul les rek qui font le contrôle parce que y a les gens techniques les gens techniques macha allah ils ont un nombre considérable ak les ak les travaux mhm. et docteurs ñoom dañuy ñëw peut-être nekk ci coordination bi mhm. mais liggéey bi tamit suuf dañ koy def les mhm. gens techniques il faut vraiment te dañuy sonn yàlla xam na ko da nga leen di sax yërëm parce que c' est des gens yoo xamante ne euh, agent technique des pêches yi. Mm-hmm. les ingénieurs les ingénieurs des travaux mm-hmm. des les ingénieurs des pêches. Mm-hmm. ak ak ak dañuy dem fu nekk ci ci àll bi. région bu nekk lañ leen di yóbbu te pourtant chaque fois ñu affecté fi ay nit. xam ci dans les ñu ne bëgguñu dem wala genre yooyu alors que ñoom foo leen yóbbu dañuy dem. donc ces gens là je pense que mérité nañ quand même. ñu teg leen ci ay yu baax. et malheureusement donc kenn comprendrewul sa politique. moi je pense que tey lu mel ni secteur primaire. Mhm. dañ ko war a dooleel dañ ko war a fulaal. Ah, dañ ko war a tamit tax ba nga xamante ne mais ñun. ñun suñu cas moo ci ne. Mhm. ñun bi ñuy dugg on était quarante docteurs vétérinaires. Mhm. mais vingt yëpp dem nañ. les vingt sont partis parce que dans le privé. parce que parce que conditions yi c'était pas bien. waaw ah yi c'était pas bien am na ñoo xam mënuñ ko fi toog di xaar. donc c' est ça quoi donc loolu moo waral vraiment ñun dañ jàpp ni. l' état dafa war a vraiment euh, jàppale ses agents. ba nga xamante ne tey dinañu mën a am euh, fulay liggéey. bëgg toog liggéey mais bu fekkoon état na volonté jàppale déjà déjà déjà de si dans le privé et puis loolu kenn mus ko gis man je n'ai jamais vu fu ñuy joxe nit ndàmpaay. dem ba ci biir ñu ne ko léegi dañuy rocci ndàmpaay boobu. Mhm. ci ban base la ko teg kenn xamul. Abdoulaye Daouda Diallo sa décision là. Mhm. c'est quel type de décision. décision impopulaire boo xamante ne tey li ci gën a grave mooy des agents ndeysaan euh, am na ci ñoo xam ne euh, dañu commencé woon def ay prêts dans les banques. ba commencé woon xam nga di ci soxaliku jàpp ne mais tey ces gens là dañu am jafe-jafe yaakaaroon ci indemnité boobu ñu xëy tey ne dañ koy dagg mhm. élevage moom ñoo gën a dee parce que élevage ñoom ba léegi sa jotaguñ xaalis boobu depuis presque un un an ngi nii depuis presque six mois xaw ma sept mois. ñu ngi xaar ñu yokk nañ ko ba tey. waaw ñu ñu ngi xaar ñu jékki-jékki ne leen mais finalement dañ koy dagg. mais loolu kenn xamul lan lay signifié. Ah, na état moo tax ma lay wax xëy na moment bi ngeen defee grève moo moo baaxul. parce que dañ nekk non moment bi moo baax parce moment bi li tax mu baax mooy. ñoom comme ñëw nañu. Mm. parce que suñu ministre yi je pense que euh, déjà euh, Pape Sagna ak euh, ak euh, Pape Sagna Mbaye moom mooy la nouveau ministre de la pêche. Mm-hmm. le ministre aussi Aly Ngouille Ndiaye de l' agriculture. Mm-hmm. ak le ministre Salé reste récemment. Mm-hmm. ñoom manifester nañ seen volonté. ne ñoom bëgg nañu vraiment taxawu. pour que ñu delloo parce que ñoom jàpp nañu lii normalul mhm. mais décision bi ça revient au président la république mhm. mais ñun on attendait que hier sax parce que amoon nañu enthousiasme mhm. que hier bu ñu jugee ci conseil des ministres quand même xanaa dinañu mën a régler problème bi mais waxuñu ci voilà mais daal li ma bëggoon wax surtout par rapport ak viande bi population yi dama bëgg vraiment ñu bàyyi xel que ne jafe-jafe-jafe yu rëy moo am fii instant yi yàpp bi ñoo ngi koy jaay te contrôlé ko te loolu mën na indi ay problèmes de santé publique notamment des maladies mm-hmm. yu mel ne ay tuberculose yu mel ne ay euh, teeñaa ak yeneen ak yeneen xeetu maladies yoo xam ne li ci gën a graaw aussi mooy covid 19 doy nañu sëkk mbubb li ci gën a aussi mooy mm-hmm. saay-saay yi mm-hmm. mën nañ cee dugg mais c'est vrai maa ngi doon gis que ñu ne seen secteur bi aussi dañ ko infiltré maanaam am na ñoo xamante ni euh, duñu vétérinaire vrai mais dañu ñëw euh, dugg ci seen métier mi waaw xam nga dans le privé les gens am na si ñoo xam ne moom dañuy jël seen i il se prend pour des vétérinaires def di def loo xamante c'est du n'importe quoi mm-hmm. waaw mais malheureusement bon c'est des gens yoo xamante ñun des on les identifie l'ordre joue un rôle très important sur ça mm-hmm. des on les identifie mais après du mujj fenn mm-hmm. alors que si c'était un policier bu jëloon kii bi nii tey dañ koy jàpp tey bu fekkoon un médecin. xam nga malheureusement un docteur un docteur vétérinaire. ñoom tey bu nekkoon un médecin moom moo def loolu un un médecin humain. usurpation de fonction tey dañuy naan dañuy naan non lii c'est extrêmement grave. mais tey un vétérinaire mais dañu xamul ne. impact bi xëy na peut-être mën na bañ a nekk impact direct. Mhm. mais impact indirect la. parce que tey mali euh, kii boobu ñu utiliser antibiotique bi ñu utiliser. di ko euh, pikiir xar yi. dafay des ay résidus yoo xamante ne dafay des yàpp yi. parce que des fois souvent. résidus yooyu lu mu mën a créer ci santé mais dafay indi ce qu'on appelle la résistance aux antimicrobiens. yi ñuy pikiir xar yi ñoom xamuñu ko. xam nga dafa xam nga bu fekkee tey da nga pikiir xar. waaw nga jël benn antibiotique. Mhm. pikiir ko benn xar. Mhm. fekk xar boobu noonu. Mhm. Euh, antibiotique bi jeexul ci yaram maanaam maanaam euh, temps temps de d'attente bi jeexul. résidu bi dafay des yàpp bi. te résidu bi su desee si yàpp bi su fekkee nit ki daf ko lekk. mais boobu si yaramam. mu indi ko fa su amee tax ba. Euh, euh, xam nga boo xoolee antibiotiques yi utilisé mala yi ak yi ñu ah. utilisé nit yi benn la ah. amul différence mhm. tey boo xoolee antibiotique principe actif la ak excipient mhm. excipient bi mooy changé mhm. principe actif mooy li nga xamante ne moom solo te loolu benn la ci nit ñi waaw moo tax moo tax euh, bactéries yi jàpp nit ñi tamit ñooy jàpp mala yi c'est la même chose donc bactéries yi nga xamante ne tey mën nañu résister ci ci ci nit ñi bactéries yooyu mooy tax bu ëllëgee su ñu bëggee fajo du ñu mën a fajooti maanaam dañuy am ay bactéries yu dërkis loolu nag mooy indi ne bactéries bactéries yi su dërkisee bu ëllëgee soo bëggee traité euh, boo bëggee traité nit ki doo ko mën a traité boo xoolee FAO joxe na plus plus de cinquante mille cas de mort à travers le monde te Afrique moo ci gën a lorule parce que on fait l'utilisation abusive mm. des antibiotiques bokk na ci ni ñu bokk bokk na bokk na si ñu ñi nga xamante ne mooy les les les les faux vétérinaires la bokk na si aussi tamit ñun ñuy def automédication à mhm. travers donc dem di jënd garab rek mhm. di naan bu say bopp mettee nga dem jënd antibiotique naan mu yàq yooyu yëpp dafay indi ay jafe-jafe donc problème yi daal. xam naa Fatou Kiné dina ci def gëstu moom mooy madame santé bi. <laughs> waaw macha allah <laughs> am na am na solo. mooy mooy ñu jeexal rapidement. <laughs> nga defaat sa dernier appel xëy na président déggal. man de li ma bëggoon wax rek. président am na gis nañ ci suñu bopp. waaw li ma bëggoon wax président daal mooy. moom si boppam man dama jàpp ne président si boppam xam noonu mu demee. Mhm. parce que su fekkee si adresse am au premier mai. Mhm. moom si boppam taxaw na. Mhm. daal ne euh, dama bëgg vraiment secteur primaire bi ñu am ay conditions yu normal ba tax ñu mën a toog. je pense que kon président ci moom xam na kon problème bi. léegi nag jafe-jafe yi am. xanaa keroog nekkulee woon ci ndaje ma. ah ndaje bi mu woote demu leen fa. non non demuñu ci ndaje bi ci ci kiwu si ndaje bi donc mais mais daal ñu ngi wax ni nañu nañu président na président taxaw si loolu. Mhm. beneen bi tamit mooy. Mhm. Euh, damay woo. vraiment consommateurs yi. Mhm. ñu def nànk. ci période bii nga xamante ne. période bu doy waar la. te je demande aussi à l' parce que kii mmh. c' hors la loi. kii nekk au niveau des abattoirs c'est un hors la loi parce que tey ku ku ku kuy permettre ñuy jaay yàpp boo xam ne kenn vérifié wu ko mhm. moi je pense que tu es pense que l' état doit sévir. nit ñi aussi maa ngi leen di woo. vraiment ñu bàyyi xel ne. yàpp bi ñuy lekk c' pas contrôlé du tout. ah doy na waar alerte bi moom <laughs> sa appel bi moom ñëpp ko war a dégg ndax nag lu ñuy consommé dafa war a nekk lu jaar ci yoon ndax su duggee euh, mën nañu jural yeneen feebar vétérinaire yi nekk ci grève boobu ba léegi état bi ne part du dëgg du yoon ndax santé population bi santé publique bi le secteur primaire et tout l' élevage l' agriculture ah et la pêche vraiment euh, dañ leen war a gën a jox bopp fulaal leen dooleel leen bu ko defee liñ bëgg ci autosuffisance ñu am ko mun na mun naa ne euh, ñu ngi leen di gërëm euh, gërëm docteur Alioune. Euh, jërëjëf maa ngi kontaan maa ngi lay gërëm bu baax. yaay secrétaire général des médecins vétérinaires du Sénégal. dem publicité gannaaw publicité yi Fatou Fatou Kiné dem dina fi teew pour le journal.